Birame waaw dama ko bëggoon a poser ñaari question rek ba si ñett euh, première question bi mooy d'habitude journalistes yi bu ñuy bind dañ naan Guy Marius Sagna activiste mu nekk baatu nasaraan tey boo ñu doon boo doon définir rek ñuy seetaan activiste mooy lan ci wolof lan ngay wax ensuite euh, différence activiste ak homme politique sénégalais yi tamit yaakaar naa ne soxla woon nañ tuuti xam nga expliquer leen lan moo ko waral Euh, sànq question bu may jeexalee dama la dégg ci say jaar-jaar nga expliquer ba wax université foofu jaar donc faculté de droit précisément man tamit ma jaar université donc xam difficulté yu bëri yu fa nekk tey jii nii euh, ñu dem ba jàpp ne quatre-vingt-dix pour cent étudiants yi doog ñëw université du ñu passé deuxième année yàlla dogal yow nga bokkoon ci ñooñu pourquoi Guy Marius Sagna ay Auchan lañ koy dégg muy wax mais problème université yi nga xam xamante moom jot na ko dund souvent du ci exprimer wu lu ko waral. damay commencer ci euh, laaj bu njëkk bi euh, ñun ngay dégg régulièrement ñu naan la euh, Sénégal dafa am benn jàngalekat pour ñeent fukki njàngaan ca daara ju kawe ja alors que norme yi c'est un étudiant pour un enseignant pour vingt-cinq étudiants. ak yeneen ak yeneen loolu dañ koy wax régulièrement et lii wane ne ñun université dafa am solo ci suñu liggéey am nañ FRAPP UCAD ñu ngi taxawal nañ FRAPP UGB maa ngi jóge Ziguinchor am na fa FRAPP Université Assane Seck de Ziguinchor ak ñoom seen donc ba pare sànq wan naa la ne régulièrement tamit ci plan d'ajustement structurel yi dañuy wane ne les politiques du FMI et de la Banque mondiale santé ak éducation et ci éducation euh, jàng euh, université yi am am solo loolu dañ ci dugal suñu loxo bu baax a baax ñun ngay dégg ñuy rappeler régulièrement que Sénégal ñaareelu université bu gën a rëy ci Sénégal mu ngi tudd université virtuelle du Sénégal ñuy fàttali ne ba pare ànd ceeg ñoom que étudiants yu nekk université virtuelle du Sénégal ni ñuy woowee UVS c'est pas université virtuelle du Sénégal mais université des vies sacrifiées ñun rek nga gis ci misaal daaw ñu àndoon ak septième promotion de l'université virtuelle du Sénégal ñuy xeex di xeex di bëreek ñoom ndax liñ leen doon bëgg def ci biir université virtuelle du Sénégal ñu def conférence de presse ak ñoom dem ba waa université virtuelle du Sénégal convoqué ñu ñun réunion ñun ñu toog étudiants yi toog ñoom administration toog pour jéem a trouver un terrain d'entente amul keneen ku koy def amul keneen ku ko def donc dama doon fàttali misaal yooyu pour wane ne no université delluwul ginnaaw ci li nga xam ne moom la ñuy xeex d'ailleurs dañuy faral di wax naan ñun lu ñu bëgg mooy système éducatif boo xam ne c'est un système national démocratique et populaire parce que li fi am ce n'est ni national parce que programme yi ay programme doxandem la en fait li ci ëpp France ngay gën a jàng que Sénégal Euh, mais Japon ngay gën a jàng ko Mali ak ñoom seen national euh, démocratique et populaire démocratique mooy pour que les différents acteurs de l'université bi y compris les étudiants ñu mën leen déglu ñu mën leen respecter pas li am parce que lii ay yëfu caaxaan la ba pare populaire mu bañ a am une éducation à double vitesse mu am école université des riches école université des pauvres mais boo gisee université comme lycée yi comme école élémentaire publique j'ai l'impression que dañoo saboter éducation bi doomu béykat bi moo fay nekk doomu baadoole bi moo fay nekk euh, doomu nappkat bi moo fay nekk ñun ngay dégg régulièrement ñuy fàttali ne ñeenti at yi passé sur cent candidats au juróom benn fukki dañoo lajj loolu yëpp pour wane les défaillances de suñu maanaam système éducatif rawatina ak suñu système universitaire donc euh, ci euh, question bu mujj bi loolu laa amoon li may wax euh, deuxième question bi ak première question bi j'avoue léegi je crois que même Astou laaj na lu xaw a mel noonu mais ay chaplito dama ko fàtte xam nga euh, Thomas Sankara wala Amilcar Cabral moo doon wax ne ñun dañuy def rek ni ñuy woowee bàyyee nañ ko ak nit ñun tur bu ñuy woowee du loolu moo ñu yitteel lu ñu yitteel mooy lii nooteel la dañ koy xeex xeexum nooteel boobu ndax dañ koy woowee politique ndax dañ koy woowee activisme wax dëgg yàlla man personnellement du du lu ma amal solo trop nuñ ko mun munti woowee man baax na mais li am solo mooy vingt mille hectares yi nga xam ne jël nañ ko ca Njayel jox ko Frank Timis ñu ngi koy xeex naka lañ koy woowee xaw ma lijjantewuma loolu ñun suñu solo mooy vingt mille hectares yooyu nañ ko delloo askanu Njayel mille hectares yi nga xam ne jël nañ ko ca Pakour jox ko benn nit mu am mille hectares ca Vélingara donc 1000 ectare ca Pakour nañ ko jël delloo ko ñun xeex boobu naka lañ koy woowee est-ce que activisme la est-ce que politique la euh, man du ma si du ma si tardé trop en réalité biram d'ailleurs damay profiter ci occasion bi di la féliciter di la encourager parce que xëy na euh, bi ma bi ma ràññeewee sa kanam yàggul mais yàgg naa lire say chroniques depuis longtemps ma ne kii mooy kan <laughs> mais dama bugg a wax lii pour wax ne say chronique ay chronique yu am solo la. dama yàgg liir biram biram biram biram biram ma ne waaw biram bi mooy kan. boo liiree muy vraiment mais vraiment dalay dalay amener dalay pousser à ce que nga ñoŋal sa xalaat. man defe naa bi ma ràññeewee sa kanam est-ce que mot na 6 mois. donc dama buggoon profité ci occasion bi yow ak ñu mel ni yow muy moo xam ci Walf ak ci feneen ñoo xam ne ñu ngi def seen liggéey te yàlla tax. et non euh, utiliser seen plume pour être des dames de compagnie dama leen bëggoon sargal dama leen bëggoon rendre un hommage euh, yow xam nga ne euh, je suis en train de perdre le fil de ma pensée yow xam nga ne amoon na jamono yoo xam ne fii Sénégal kenn daana fi wax activisme ndax lan parce que boobu mais parti politique mu nga place am parce que boobu militant parti politique mu nga place am en réalité dafa mel ni li parti politique yi doon def ca jamono jooju parti politique baaxee surtout ñu ngay woowee les parti de gauche mais en li Sénégal bokk li ñuy woowee activiste dafa mel ni loolu la ñuy def bi syndicat baaxee et non syndicat di lekk ba mënatuñu wax ñuy signer ay pacte de stabilité xawma sociale boo xam ne tekkiwul leneen lu dul pacte de silence de complicité sociale dafa mel ni syndicat bëreetu fi dafa mel ni sampal syndical bëreetu fi te tey la liggéeykat gën a torox gën a sonn arriéré de arriéré en fait de salaire licenciement arbitraire des travailleurs mais dafa mel ni jamono bu syndicat nekkee place am jamono bi parti politique nekkee place am ñun lu ñuy def loolu lañu doon def léegi nag ndax loolu dañ ko war a utal beneen tur ndaxte parti politique ya woon dañoo déserté loolu ndax loolu dañ ko war a woowee beneen tur woowee ko tey Sénégal activisme parce que syndicat yi dañoo déserté loolu ñu ngi ci perjem yi ñu ngi ci voyage BIT xaw ma Genève ak ñoom seen ak di siéger ci conseil d'administration ak conseil économique social et environnemental fàtte liggéeykat yi man xaw ma mais j'ai l'impression que li parti politique yow woon doon def te pour man loolu mooy liggéeyu parti politique tey li syndicat yi doon def avant te pour man loolu mooy liggéeyu syndicat yi tey moom la ñenn ñi di woowee activisme fii ci Sénégal may daanelee mooy activiste comme ñun pays francophone la ñu ndeysaan activiste ca cosaan ba bu ñu la woowee activiste ci pays francophone daanaka saaga nañ la. d'accord saaga nañ la de maanaam tagguñu la mais boo demee ci pays anglo-saxon yi bu ñu la woowee activiste mooy yéegal nañ la yëkkati nañ la maanaam kon le sens de activiste ci anglais ak ci français bokkul léegi nag de plus en plus da ngay gis ne fii ci Afrique. sens bi ñuy jox activiste mu ngi waaj a jege sens bu ñu ko yàgg jox fële dans les pays anglo-saxons Martin tex King activiste lañ koy woowee Malcolm X activiste lañ koy woowee ak ñoom seen donc yooyu yëpp dañ ko war a boole ci réflexion bi waaye fi may daaneel rek mooy man ni ñu may woowee ñun waa ni ñuy woowee bàyyil nañ ko nit ñi li am solo mooy sës rëkk ak askan wi ànd ak moom